May Vigna. Bongo. Tapal ma bii télé. bu ma ko yéegi dox la. À part moi, y a personne qui peut faire ça. Retrouvez DJ Kheucha du lundi au jeudi de 11h à 13h sur la 2STV. mbégteeg bànneex ak contentement lañ ci àndal dafa mel ne la ma xasoon wax noonu daf ma rëcc de j'ai que j'ai comme l'impression que le monde entier est en train de me contempler et dire que mais est-ce que aujourd'hui 11 évidemment que oui les amis je suis venu en retard nag tey dinaa leen nettali yéen xam naa ne yéen a ngi naan waa Kheucha moom fan la nekk ba 26 minutes 11h26 namoon na de tey nag je suis venu en retard mais dinaa leen expliquer euh, naka la xateeg ñoom seen xam ngeen rek yénn bagage daal avant am ku ma catu mais naa leen wax kan la maa ngi leen di nuyu mbégteeg contentement ak bànneex laa ci àndal di leen bégge yéen ñi nga xamante ni yéen a nuy seetaan à l'international bokk ci waa Italie euh, bokk ci waa France bokk ci waa Belgique bokk ci waa ñi nga xamante ni euh, ñi ngi nuy seetaan un peu partout ah foofu nga xamante ni moo di ci Europe en Afrique ñi ngi bégge waa Gabon Côte d'Ivoire Mali Burkina euh, waa waa waa waa Nigéria bu kulim juum maa ngi leen di nuyu di leen kontaane yéen itam bu baax baax a Sénégal bonjour à vous les Sénégalais yi nga xamante ñoom itam ñi ngi toog seen kër xam naa ni boobu ba tey yéen a ngi lem salu ñi ngi toog naan ay waay Kheucha kañ lay commencer dina ñëw ak du ñëw eh je suis là votre ami votre frère Kheucha est de retour gis ngeen tey fa ma génn yéen Lacoste courte manche laa leen wax xam nga yëpp xale la jeudi da ngay def yëpp xale doo sol ay chemise yu gudd da ngay sol fii nga xamante ni dañuy àndandoo xale yi xew ci jamono a a Roqeye ak sama caméraman yi nga xamante ñi ngi jàkkaarloog man ñoom itam euh, toog di ma xaar gis ngeen ma maa ngi nii yegg si euh, bànneex rek laa ciy wax ji du bari tey gré tuuti nga may ñamal ci sama séance d'étirement parce que sama yaram tàng na ba pare tuuti nga ma ciy ñamal tuuti séance d'étirement et puis on revient ñu dem xool Edmo Flow très rapidement let's do the show right now je te présente l'original musique fana du Sénégal. On l'avait cuisiné pour qui ont la médiocrité musicale. Celle-là est on l'amène à l'échelle internationale. Tony de combat, Kingdom, la marque elle est royale. ñëpp ko télé ma andi ba ma ko bëgg ko Gambia xam na ni moomu ko Sénégal jot na ngeen këram Edimo Edimo. Je l'ai connu depuis qu'il a le cœur gens. Là on est en tu n'aimes pas Ibukwa. Le rythme est là, tu reconnais mon frère, welcome to Dakar. Ma nigga, pas il déconne, les gars, mambo le rechaga bakar. Bajal nagabe, bafazan les magaji nagabe. Daiga bany, sobaga nango, nitali bek sanjbe. Nitali bek sanjbe. Nitali bek sanjbe. Nitali bek sanjbe. Nitali bek sanjbe. Nitali bek, nitali bek, nitali bek. ba fees waxal ma kee waxal ni maa fi ma kee xamal ko dégg ni maa fi nekk yaa kii ba fees à part moi y'a personne qui peut faire ça teguma benn yoon utuma raccourci ngir am bës xëcco nga ndaare bi ma njëkk la sànni dem

xamante ni yéen a ngi nuy seetaan un peu partout très rapidement mon ami très cher dañuy dugg ci playlist bi euh, so right now dañuy dem seeti Marouja mais ba avant ñu dem ci Marouja nañu xool 88 628 14 13 kan moo ci nekk bonjour. bonjour. oui. Tata. oui. ça va. ça va bien toi. yaa ngi ci jàmm. yaa ngi baax. maa ngi baax. man maa ngi baax ku fi xolam di baax. kon tabaaraka. Eh, dama nga toog yow. dama nga toog yow. <laughs> mais sinon. ça se passe. lépp nice xam naa nga toog 11h ba 11h26 naan waa xëcca fu mu ne yéen. Ah? bi nga toogee sànq ba léegi gis euh, Grégoire di la tegal ay musique xam naa nga naan xëcca fu mu ne. yii eh, kon dama sañse nii. yaa ngi rajo xetale. bu fekkee ni dama xaw a dama sañse ma simeeku changé sol leneen kon. dama sañse. et pourtant je me rends même pas compte je jure je ne me rends même pas compte. man dama laa bëgg. eh waxal waay noo ma bëggee noonu yow. lu tax bëgg ma. da nga mën a sañse da ngaa ba pare rafet boo. Eh, ah dama bëgg ma naa. da kay. bàyyi la waay ba Fouta yooyu bu ngeen ma koy wax nii daf may xaw a jaaxal bari. Mm. non je jure. ma la ko waxee kon boo ko déggee lu bëri nga war a xam ne dëgg la. waaw mais du li ma koy dégg barewul moo tax gëwuma ko. ñu ngi koy dégg kay bëri kon financé ma bëgg laa la ah. laa bëggoon. sama numéro. waaw yow ñaataat nga man waaw. <coughs> jël sama numéro bul coupé dina la ko jox. waaw ok. am fit quoi ñoom 12 ans alalu. ah ah kii waaw nga ne. c'est bon yaa ngi jël numéro bi ah. 12 ans alalu procureur noo may mën a waxee da nga boobu ba ma yaakaar ne man dal naa ci nekk 12 ans nga am. génne leen ci yi ngeen ne ayca on enchaîne mon ami très cher Marouja Fit King Lodia amul âge euh, son la boo xamante ni génn y a à peine cinq jours actuellement ça fait le buzz sur YouTube une très belle fille boo xamante ni elle chante hyper bien aussi avec une très belle voix vous allez le découvrir le titre justement euh, dans 11 13 en exclusivité on regarde Marouja c'est parti. Grégoire <laughs> <laughs> Grégoire Grégoire génn ci yi nga ne ah, ah, moom dañ li may wax yëpp nekkee dugal na ma ayca 88 la 628 14 13 ñu mën a participer euh, waxtaan ak yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan mais mon ami gis nga nag libaas damay wax dëgg rek damay wax dëgg. gis nga looloon def tay am ni dafa doy waar de gis nga am ni foog ko ngëp nii lii lii mooy ngëp ngëp <laughs> li ma maa ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax alors très rapidement les amis dañuy euh, enchaîner ak euh, clip yi ndaxte xam naa ne yéen tamit yéen a ngi ciy bànneexu bu baax a baax comme chaque jeudi nag euh, dañuy may ayca bàyyi ma jël ki nekk ci lin ba pare ci 88 628 14 ou 13 bonjour. bonjour. oui bonjour ça va. ça va bien. très bien et toi. bien baax. man maa ngi baax ku fi xolam di baax. tabarkalla. eh demal toog yow. demal nga toog eh, laa ko teg. <laughs> Papa ça va. naka mu ça va on est là noo tudd ak fan ngay woote. maam Diarra Gaye Ndiaye. fan ngay woote. Thiès. nitu Thiès. waaw. <laughs> waay waay nitu Thiès ak yi waay gërëm. <laughs> gëne eh, del gaaw a dem sa liggéey ay eh, waa Thiès yàlla dama bëgg waa Thiès woote leen waaye dama leen bëgg tay esat yi ñi ngi may rey nitu cees te ku ci nekk ci ñun ñi am na maam maam bu dëkk Thiès man samay maama nga Thiès kon man nitu Thiès laa bu leen di coupé Mame Diarra dimbali ligne bi euh, Grégoire Roube la tuuti xam naa ne yooyu la bëgg di kaf ak yow ak di foo ak euh, euh, everything moo bu nga ni c'est un duo avec sa maman une très belle chanson boo xamante ni actuellement aussi ça fait plus de 2 millions de vues sur YouTube si je me trompe pas j'ai pas droit à me tromper je devrais vérifier mais bon boo xamante ni ça fait plus de 3 millions de bonjour ça va Kheucha. bien et toi. ça bien alhamdulilah. yaa ngi baax. waaw maa ngi baax man maa ngi baax ku fi xolam di baax. tabarakallah. ay dama nga toog yow. mais avant tout damay xuloo yow lu tax doo tontu message Instagram. message Instagram pourtant damay tontu de. ah message naa la tontu woo ma. waaw ak ak ak ak wa wa wa wa wa sax ñoom tamit message nan ma. ñoom maa ngi leen ton par benn benn xamu ñoom macha allah <laughs> bari waaw naka mu waa jéggal ma naa la tontu. waaw baax def fooy wootee. man Fatick. Ah, fatik nitu fatik nga. waaw gis nga de. Ah. ñoom réew mën a yéen <laughs> nitu Fatick yàlla na ngeen gudd fan yaa ngi ci jàmm. waaw yaa ngi baax. waaw sinon sa numéro laa bëggoon. numéro téléphone. waaw. Eh, loo doyee sama numéro yow. ah ñu wax lu neex rek. ah lu neex. waaw. Ah, lu neex rek moo am lu neex bari na lu neex mu bari na te wuute. ban façon neex ngay wax. neex neex rek. ah fi may xalaatee foofu nga jëm. Ah, déedéet. Ah, kon kay loolu neexul <laughs> ah. bu dee du fu may xalaatee kay neexul moom. <laughs> waaw jox ay dina neex dina neex. dina neex kay. ah kon baax na. eh sotti ko ko jox ko ko man ragaluma lool zérém <laughs> dégg nga. ayca jox ko numéro bi moom itam mu daal di bég ba tey c'est sur le 88 628 ngeen mën a dugg ñu mën a waxtaan ak yéen c'est comme ça euh, c'est le rendez-vous de la jeunesse euh, bi nga xamante moom la leen di bëggalee saa su ne euh, moom moo di li nga xamante ni moo di rien que pour les jeunes donc dugg leen ngeen ñëw ñu waxtaan ak yéen ibi mu yaatu foofa daal di toj on enchaîne toujours ak xale boobu nga comme que yow Fatick nga jógee bàyyi ma tegal la sa une très belle voix, une voix sublime. C'est à découvrir, les amis. Voici Soro Bébé from Fatick. C'est parti. Aïga. neexoon na de 88 628 14 ou 13 bonjour. bonjour. oui bonjour. Kheucha ça va. ça va bien et toi. je vais bien alhamdulilah. yaa ngi baax. maa ngi baax man maa ngi baax ku fi xolam di baax. tabarakallah eh, kon demal nga taxaw na le. bu leer laa ko teg. <laughs> waaw bu la neexee de mais naka mu. ça va. foo dëkk. Kaolack. Kaolack nangaan. waaw. cung doomu Kaolack ñoo mën a mën a waaw dafa leer. yéen yéen a baax. ëpp na. laay wallaay foo dëkk ci Kaolack. man jàmm gën. jàmm. jàmm gën. yaama gën. jàmm gën xamoo jàmm gën jàmm gën jàmm gën jàmm gën yow moo tax sa jàmm bari danga ngaa am jàmm. waaw gis nga noonu. mais naka mu nice. waaw ça va alhamdulilah waaye Step Lord nee ma mais xëcaa yow ay jigéen rek a lay woo. waaw noonu la da ngaa nekk animateur xale moo tax. ah animateur xale ba pare dama. def sañ seetu nag en plus ah, ah. xam naa la ah. waaw moo tax moo tax du du jaral na ma tàdd émission <laughs> est-ce xam ngeen. waxaguma leen li tax ma tardé de sañse bi la. man daal sama livreur bi ma waroon yóbbee xam nga démb laa ko waroon sol mais démb dama xool ni bu ma teglee trois chemises longue manche day xaw a day xaw sañse bi mën na rafet sax nice mais tem nit ñi ni xëcc temps yi chemise yu longue manche yi la jël te bëgguma ñu naan ma damay jël dara. et puis man puisque damay dem ak mode déglu ma rek ma yeggale puisque damay dem ak mode. ma ne woon nan ma indil chemise courte manche ma xool blanc bi xam ne dina dina gullaa njaay te day ànd ak xale xam nga xale dafa bëgg lu ndaw loo xam ni day serré et puis c'est très jeune tu vois pas. voilà ah voilà looloo tax nag ma nekk en retard et puis sama livreur boobu moom xam naa ne tey lay mujjee livre tey la muy mujjee livré moom. moo tax sincère nga nii. ah yii laay def yii laay def ak yeneen bari na de yi may def nii bari na de pourtant man. yii xam naa loolu xool ma xool xoola am xoola am di ma teg lii lii baa jàmm la waaye libaas libaas dinaa la faral <laughs> faraluma kenn man ko fi ne rek woo <laughs> ma mais kontaan naa ci yow dégg nga guddal fan guddal fan on poursuit ak Sokhou Bébé toujours ca gré bu fekkee ni kale na rek gré ayca yeewul yeewul ñu dem xool Sokhou Bébé from Fatick toujours pour cette chanson c'est c'est c'est c'est c'est exceptionnel fi de <laughs> gën a gaaw yëglu silence dans la salle Grégoire del yëglu baax na 88 628 14 13 bonjour. bonjour Richard. Euh, excusez-moi gis nga maa ngi fekk di wax parce que xale yi jigéen yi nekk fii ci salle bi ñoo nekkoon di ma piis ñi di ma laaj sama numéro munuma leen ko woon jox noonu très rapidement moo tax ma leen doon wax ni leen donc bugguma yooyu ko xale yi jigéen ñi waa step euh, lood yi comprendre nga. waaw la demee yow naka mu. déggu mu. ma ni naka mu noo tudd. Ami Mbaye. Ami Mbaye. waaw mbay Moussa Jama Kumba Seen mbay Goli Fatima joojo borom ngaay njira mbay demba xoy mbay demba latti mbay demba ak mbay demba koo faale waa cub xasaa léegi lum doon e xoolal rayal ma teeñ rayal ma teeñ xasaa yow maa la bëgg ma teeñ gaaw kon wala rayal naa ko ndeysaan ndeysaan waykat a ngi de barke Sëriñ Tuubaa ayca 88 628 14 13 Simon je te fais un petit coucou toi aussi mouah bisous ayca salaamaaleykum maaleykum ngi baax man maa ngi baax ku fi xolam di baax tabaarakallah e eh, kon demal nga toog yow <laughs> ci loo ne nag maa ngi nii rek sinon lépp nice fa noo tudd ak fan ngay wootee Adama Thiaw Kër Massar Adama caw Kër Massar. oui waaw doo ma Thiaw xiir gi. non non même ah. ci ñi ngay door quoi. déedéet mukk. caw caw caw Thiaw Thiaw yaa ngi ci jàmm. <laughs> maa ngi ci jàmm a ngi nice. oui cool. yaa ngi cool mais Thiaw yéen yéen da ngeen baax xam nga tax man leen da ngeen baax. Hmm. tey ngeen xam ni tey j'étais venu en retard ngeen toog ci télé bi ba heure bi téye seen téléphone mu dugg rek ngeen commencé woote est-ce que man ah. am naa seen fay yéen. am naa seen fay. waa bu seen fay lan la rek fay nga ñu. ah, ah bëggal seen xol kon. kon kon li may def mi dugg seen xoli ah, kon man yéen mënu mënu leen ma fay kon <laughs> bu dee seen xol yi lay dugg rek mënoo leen ma fay. <laughs> dégg nga. Ah, ah bu dee noonu la demee kay moom mënoo leen ma fay kon man maa leen ma ma ma man maa leen war a fay. en tout merci beaucoup affaire xale la xam nga boo defee yëfu xale xale yi dañ koy bëgg. <laughs> yëfu xale lan ko def yëfu xale lan ko def papa euh, papa euh, alaaji Ndiaye ak yaay Marème danoo mhm. xool xam ne jeunesse bi soxla na nu xëy na peut-être koo xamante ni mën na véhiculer ay message mën na leen mën na leen di wéttali ñu teg ma ci kanam télé bi nii may wax ak yéen ah, noonu dong la yëf yi demee du leneen billaay ñaanal leen leen ñu gudd fan rek ah et eh, pourtant je me rends même pas compte ah, arrête arrête s'il te plaît dis pas dama sañse sinon damay arrière gën la ko wan waaw loolu laa loolu samay daal la jiin bi lan lay wan noonu ba ba ba li ngay def man yii bëgguma ko quoi très sérieux ah ñaamal njaab rek ma xool. ma njaab njaab bànni nga xool quoi. xam nga man yii nga may defloo nii man di def yi billaay parce que man dama dama xaw dama xaw a quoi. man yii laa bëgg nga koy def ak yeneen. mais bon man maa maa ngi njaab di ñëw ci yow nii. waaw gis nga waaw sama mbagg bi baadu damm. xoolal xoolal fi ma ko téye gis ko fii yaa ngi bëgg. maa ngi ah, noonu la man li leen bëggal ci laay dox bu jaree sama loxo damm sax dinaa ko def. bëggal lii. waaw ah, waaw kenn day yéen ci man. <laughs> loolu yàlla defal leen jàmm. kenn gënu leen kenn kenn. ah waaw waaw damaa baax nag. moom moom sama baax moom xanaa xamoo nit bu dee waxal ay baax baaxu boppam du juum. man su ma neexee ni man sama xol dafa rafet man. ku tagg sa bopp doo juum. waaw ku tagg sa bopp doo juum man sama anniversaire chaque jour damay tagg sama bopp <laughs> naan xëcca joyeux anniversaire yaa taxaw 11h ba 13h di wéetali xale yi xale yi di bég jàng am na ñoo xamante ni ci seen classe d' examen dañuy xalaat 11 13. waaw. examen bii passé bac bi am na ko jël ci feuille bi bind ci 11 13 yónnee ma ko. je te et puis kooku dañ ko may not parce que professeur bi dafa ni kii li mu bind nii comme que def ci def onze treize man dinaa ko ci defal treize la ko may treize te loolu zéro lan ko ci waroon may <laughs> non je te jure je te jure bu leen amatul lu ngeen di bind bind leen onze treize ngeen romb dem mat ak lépp da ngeen ciy am note maa la wax loolu incha allah mais kontaan naa ci yow de maa a kontaan merci beaucoup yàlla na sa jàmm yàgg amin amin amin damay defar chemise bu quoi pour nga gën a waxaat ci chemise bi <laughs> yow daal defa nga laf cat rek laa lay ah, wax merci beaucoup yàlla bu la cat amin amin ndeysaan ndeysaan dañ maa bëgg de dañ maa bëgg de dañ ma jooyloo rek pourtant Moussa Fagui fa mu nekkoon noonu baaxoo na de gëré mais dafa am benn parti boo xamante ni daf cee yuuxu dafa ni der loolu noonu laa bëggoon nit ñi gis ko xaw ma ba xam da ko avancé xaw ma mais boo ko arriératé rek gëré dinañ xuloo man yow mais am na benn parti bu doy waar boo xamante ni dafa ni man foofu man attanuma loolu jéem a indi foofu ah fi mu nekkoon noonu bàyyi ko mu ragolaan après bu buñ ko terminé nag dem seeti ñaari xale yi xew ci jamono ñooñu nag balaa ñoom maa yor si ñoom. illallah ay xale yi mën nañu way di nee na bu la yaay <coughs> excusez-moi <coughs> excusez-moi dama doon jéem rek nekk nit ku nekk ak la nga mën mais gis ngeen tonalité voix bi fa ko yóbbu fa ko yóbbu waaye loolooy octave 88 628 14 13 salaamaaleykum. Eh, di jëxëcaa. waaw mais Fall na nga def. waaw nu mu nee naaj. damaa bëgg balaa dara xew li Moustapha wax noonu bu la yaay loolu noonu yuuxul ma ko ma xool dimbali ma rek. non mënuma ko mënuma ko non non eh. jéemal jéemal góor du wax mënuma. jàpp si jàpp si jàpp si jàpp jàpp si rek. mais góor du wax mënuma baal loolu lool bu ko defati de. jàpp si tamit. mais góor warul wax mënuma. non baat bi baat bi la quoi baat bi. ah ba <laughs> kon xam nga ne yow sa sa baat dafa am fu mu yam. waa waaw waaw waaw ah, d'accord noo tudd ak fan ngay wootee. non man la waa TFM. waa. man la waa TFM. waa <laughs> TFM télévision Futurs média man ngeen di seetaan di yéen. waaw waaw waaw lan la da ngeen amul seen heure bi da ngeen ci amul lu ngeen seetaan wala. waaw. amuleen lu ngeen si seetaan. non non non daal ah, ay Mike. ay Mike la leen tegal. waaw Mike waaw. ah ñoom dañuy jaawale ni man dan ma jàppee Mike quoi parce que man c'est vrai que ni xale yi man la ni seetaan léegi ngeen bëgg indi xale yi ci Mike gi. waa <laughs> TFM continuer bi damay jooy te ay jooy seytaane lay doon ndaxte xam naa ne li may jooy dara ñaruma ci bàyyi leen ma def nii rek ndaxte kii nag du nit macha allah 88 628 14 ou 13 bonjour. bonjour. ça va. yaa ngi baax. ça va. ah ma ba xam yaa ngi baax. maa man maa ngi baax ku fi xolam di baax. kon tabaaraka la eh, nga toog yaw baal télé bi baal télé bi sinon day am décalage ci sama diggante ak yow. waaw bàyyi naa ko yaa ngi waaw da ak sa téléphone rek ça va alhamdulilah ngay wootee. Ah, la koy ma koy leb di nga ma ko fay. waaw naa tamit programme den ko respecté. jeudi yi xale yi rek la ñuy teg démb teg naa waali lundi teg naa waali. Ah, waa kon tegal best family. waaw de ah? ok gërëm dina la ko may amul benn problème dégg nga. maa lay xaar de ñoom tey seen seen bi génnagul. maa ñoom seen son bi génnagul dafa waroon génn 11h son bu bees bi whatsapp bi. waaw ko léegi su génnee rek nga teg ko maa lay xaar. ma lay laaj nga naan ma maa ngi lay xaar doo ma tontu ci li ma la laaj. seen son bi waaw. waaw yaakaar naa lii mu génn war naa génn sax de. waaw 11h léegi après gerte dina ko vérifier bu génnee ñu may leen boobu mais en attendant ma teg Doudou ak Saliou. waaw parce que waaw waaw waaw ma am lu ma ci wax lu am solo. waaw jërëjëf waaw maa ngi koy kontaanee bu baax a baax voici deux garçons yoo xamante ni euh, ñoom ñooy les premiers à remporter le prix de Sen-Petit Gallé booy seet ils sont de Saint-Louis du Sénégal tout comme moi Doudou et Saliou donc ñoom ñaar ñooñu. ñuy waaj ay affaire ñoom ñaar ñooñu ñu ngi waaj ay mbir ak bas sax dama ko ciy boole mais euh, c'est un duo boo xamante ni ça m'a trop marqué c'était en 2016 vous allez découvrir le talent de ces deux garçons ils sont formidables et exceptionnels morceau bi nag way bi dama koy may Lamp Gueye du ko may Boss Yandé doxal leen hop hop ay mën nañ way de 88 628 14 ñu jël ki nekk ci ligne bi aussi bonjour bonjour Kheucha bonjour ça ça va bien du yow yaay rakki mama mbaay. ma la dégloo déglu waxkat pire ay ca waxal. <laughs> Eh, kan ma ah? lu tax nga bëgg ma yow. yow Kheucha si lépp laa bëgg. da tellement beau que. sama lépp. bon vraiment. ah. sérieux. <laughs> lépp bëri na de. <laughs> lépp que ah. <laughs> sans exception. dégg ah ma ni sans exception. bàyyiwoo dara. dara bàyyiwuma dara. ah kon lépp. kon lépp. am fit yow ko am fit nga partenaire nga dëkk doo ragal. xanaa. Ah, ah, ragal dëkk fa. déedéet. rakki ma ma mbaay samedi mi ngi 5h ba di nga dem. ah waaw foo weekend bi moom vendredi samedi damay cuus euh. capp fépp maa ngi fépp. yii loolu neex kon yow daje foofu. ah mu daje après ñu ñu waxtaan. ah. waxtaan ah. ay ragaloo. du ma ragal. xam naa loolu. ah. di nga ma rey man. ah bu ma de bu nangu ma rey la de. ah xanaa yow doo reyee sax bëgg kon way way way kon xam nga ko man bëgg naa sax. naa ma rey naa ma rey. la. waaw. sa papa sa yaay ñu ngi dégg sa yi ngay wax nii. xaw ma kay mun la déggee papa dégg la seen doom ji li muy wax maa ngi lay boole. boole. ah waaw ci saala yaay coppati. déedéet. saala yaay ndeer dawoo kati. Ah, xew naa nag kon. yow da xale yi jaral naa li nga wax nag. non sa sañse kon li ma def nii dafa classe dafa nice dafa chic. non sérieux. merci beaucoup xam nga man samay invité bëgguma bu ñuy ñëw di ma dominer ci ay sañse parce que boobaa yéenay am gàcce. xanaa. moo tax ñoom balaa ñuy ñëw ma wan leen ni leen yéen xoolal fii la fii la fii la raay bi buujoo. gis waaw damay teel a pare. teel a defaru nga xam ne bu ma ñëwee da ngeen di bëgg. xam naa ne da ngeen di xaar samay sañse ci man moo tax du ma ci juum na na seen xool sedd. yii lu leer. gën a bës bouton muy gën a neex di gën a fine di gën a pawnal. lay na xisaade moom sa mbëggeel gi ngay wax ni lu la ñor la. yaa ngi koy répété dëgg la dëgg la ci yow. léegi xam nga nu ñuy def lay jox sama numéro. Euh. ah, ah. léegi seet ko. ah léegi bul coupé gars yi daal ko jox suuf. d'accord ay eh, affaire na moo dégg. naa la woo dégg. naa la xaar rek. d'accord t'inquiète. ok merci. foofu toj na foofu kay moom nee na rajaax sama xarit bi kii ak a baax on poursuit les amis toujours merci beaucoup eh, ak Doudou ak Saliou ba tey gré euh, yóbbu ko fa mu nekkoon noonu tekk ko foofu foofu baax na on ñi ngi ci deuxième partie bi je vous rappelle que sama invité dinaa leen wax léegi léegi justement euh, bu chanson bi jeexee ma wax leen ñan la ngeen mën leen xam léegi léegi léegi am na ñu ko jot a gis nag ci samay plateforme mais dinaa leen ko wax léegi léegi léegi ayca bu fekkee ni foofu kale rek ñu dem xool Doudou et Saliou merci beaucoup pour cette chanson euh, bi nga xamante ni moom itam euh, marqué na lu bari ci ñoom bàyyi ma jël ki ne ci ligne bi ba pare ñu doog dem ci page pub nekk ci sunu deuxième partie dalal sunuy gan waxtaan ak ñoom 88 628 14 13 Aïcha bonjour. bonjour Kheucha ça va. bonjour ça va. ça va bien. bien et toi. ça va alhamdulilah. yaa ngi baax. maa baax. maa ngi baax ku fi xolam di baax. tabaarakallah kon demal nga toog yow. toog yow. <laughs> naka mu nag. ça va bien. noo tudd ak fan ngay wootee. maa ngi tudd Dada maa ngi wootee Saint-Louis. ah Saint-Louis du Sénégal ma région ma fierté. waaw Dada foo dëkk ci Ndar. maa ngi dëkk côté Bayal. côté Bayal nga dëkk. Bayal waaw Bayal seen jigéen. waaw foofu foofu amoon naa ah bon. waaw. Ah <laughs> taa yooyu maa ngi maa ngi doog dugg nag ci bi nag. ah, ah mi may seetaan moom xam na ma sama ex la temps est passé mu waaw ma benn kii euh, maa ngi yow c'est que ñu bàyyante ma ni ko waa yow amuru ans xaw ma 16 ans nga naan ma c'est ñu bàyyante génnal ci yi nga ne passé naa yow amoon <laughs> ah? sérieusement sérieusement mu message ma loolu yónnee ma son ma ne ko waaye yow tamit yow maa yow ñu seq suulante instant yi nga ma wax bàyyante fàtte naa la. ah pour ñu génnaat ma ak moom en fait. ah mais mën nga génnaat ak moom. yow yow yaa may tànnal ki may bëgg. ah xam nga sànq am na benn gel bu woy sànq ni mbëggeel amul âge te damaa bëgg sax nga tegaatal ma vidéo boobu. waaw loolu mën nu ko tegaat romb nan ko. man waxu mbëggeel sax baa baaxoon ba baal baal waxu mbëggeel gi waaye ngir yàlla. ah nee de amul amul âge moom. ah ñaataan nga am. man am naa 24 ans. yow si âge boobu ngay kii man 18 ans laa man mineur laa de. mineur ah. xale nga. waaw. waaw kon maa la mag kot. waaw dadaa yow looy looy looy mesurer mbëggeel bi ci waxu âge ni fu loo bëgg wax foofu. ah damaa xam ne rek jamono ji mbëggeel amatul âge. <laughs> dadaa dadaa yow mii. yow yow mii. <laughs> xaaral ma def la nii sax nga bañ ma gis. dégg nga <laughs> merci. boo bëggee ay cheveux yu rafet rek demal ci ñii kenn du ñoom seen cheveux yu rafet na yàññ na jekk na waa gërëm mënoo koo dugal ci à l'avant fële <laughs> ba ma tardé 88 628 14 13 ma jël ki nekk ci ligne bi euh, defe naa ni de euh, best bu bees bi disponible na donc xam naa ne après fa lañ jëm ak yéen ñu ngi lay nuyu mbokk mi allo kooku dem na ay ayca euh, dañuy enchaîner dem seeti de bes xale yooyu nga xamante ni ñaanal nañu ko léegi ñu xool laka lan la ñu indil sur la toile ñu dem découvrir que après bu nu noppee xool on serait chez vous doog sunu ndaanaan itam euh, je vous rappelle que aussi vidéo rubrique TikTok yi dina ñëw mais ci biir waxtaan bi lay ñëwee ayca ñu dem seeti euh, de bes family c'est parti. pop pop gis ngeen ni ma avancé di di di xool clip bi c'est c'est c'est formidable c'est exceptionnel ma jël ki ci ligne bi 88 628 14 13 Bonjour, Kheucha. Bonjour, oui. ça va. qu'est-ce que tu peux me dire par rapport ak clip bu bees bi de best génne moom laa bëggoon commenter nii nii nii pour jox leen ko statut mais comme que dugg nga. yow mën nga ma wax ma la <laughs> raw dégluwuma sax moom na ngeen def. ñooñu fii ça va dañoo kontaan rek moo tax. ndeysaan fu ngeen di wootee. ñu ngi wootee Kaolack. Kaolack nangaan. Kaaral Nangaan waaw. yéen ku ngeen bëgg. ñun ñun xataa ngeen ma def. ak fan. fii. ak fan. fépp. ah. loolu jeexal na wax ji yéen ci jàmm. <laughs> ndeysaan. dama a maye sama doom yi maye délicat. ana doomu Waatu Sarr a Cheikh Sarr bëte bëte boobu. ndeysaan. ak Ndeye Moussa Niar. ndeysaan oh. Awa Niar madame Niar ak Adama. ndeysaan. daal. ndeysaan. maa ngi naan la daal ñun ñëpp dañu laa bëgg daal gis nga kër gi ni muy riiree kay maa may sama doom Papa Diaw. Papa Diaw. <laughs> waaw di ko may man tamit naa man itam toute la famille. toute la famille nañ ci yéen bu baax. waaw ci kaw ci am leen jàmm yal na yàlla defal leen jàmm yéen tamit. waaw ma ne ko la jeudi xale yi la ñuy valoriser waxoon naa leen ko. waaw waaw. <laughs> baal xale yi dégg nga. <laughs> waaw. ndeysaan kontaan naa ci moom bu baax a baax. ay ca ñi ngi koy bu baax a baax ma nga ca timis latti joobe déggeen bàyyi jóob démba déggeen kura faaleek déggeen démba sa déggeen bàyyi maria may sa bigé may sa bigé maar ajib naara nga ca ndoom njarka demba nga lambaay jiindoo ji faxamaaren wali balago sek au timis entrée 30 000 ah loolu dana neex de dana mel na tuq sa bënn bu saañ ba réer retrouvaille lay doon maa nga fa yéen a nga fa xam naa loolu ayca on enchaîne euh, Grégoire euh, dugal li nga xamante ni euh, moom moo di on serait chez vous defe naa ni kale nga ko ma xool nit ñi naka lañ toogee seen kër laataa sama gars yi ñoom i takk seen jàjj mën a taxaw ci ginnaaw mën a dugg bégal sénégalais yi ñu ci mbaax bu fekkee ni c'est calé mën nañ xool nit ñi nan lañ toogee seen kër ba pare ay ayca c'est parti on serait chez vous ñëw leen

ndeysaan waaw ay waay ndeysaan onze treize lay doon avec di jeex xacaar ñoo la bëgg yow baa ngi sëriñ Touba xola jàmm nga xale yëpp ngi nii di la bëgg yaa na yàlla jàmm ah kontaan na yaa ngi bëggal xale yi waaw ñëpp kontaan yaa ma gën a xam merci beaucoup on serait chez vous li ngeen ma bëgg benn bëgg naa leen ko fukk yeen eh, béggee eh, gré biraa nag moo lay jox affaire yi tey fii dégg nga euh, mën nañ ko enchaîner ak euh, rubrique TikTok xam naa ne appel après dama koy mën a téye ba ni may dugalee sama artistes ba pare 88 628 14 13 pour que ñoom aussi ñu mën a am temps bonjour. bonjour Kheucha. ça va bonjour. ça va bien. bien toi. ça va. yaa baax. waaw maa ngi baax. maa ngi baax ku fi xolam di baax yow. ay kon dama la nga taag yow. <laughs> naa xamul nag nice. nice. non foo noo tudd ak fan ngay woote. Awa. Eva. oui. tu nous appelles d'où Eva. Kër Masar. Kër Masar maa ngi lay siyaare di nuyu waa Kër Masar gépp. yéen a ngi ci jàmm baax. yéen a ngi ci jàmm waaw. alhamdulilah yal na jàmm yàgg. amiin amiin ñu bokk. yal na yàlla yàgg leen defal taw tawféex. amiin ñu bokk. sutura gu saawan baawan Eva. <laughs> amiin incha allah. kontaan naa ci yow. kontaan merci beaucoup sister d'amour. mën naa am clip bu Je Family. moom lan teg léegi léegi awa foo ne woon. non bu bees bi wax ma boobu beneen. bii du bu bees bi. bii bu bees bi la déglu naa ko ba pare. waaw léegi bii bii bii moom xanaa da nga bëgg jël de mu jox leen émission bi ñu moom ko. non non waaw. waaw ñamal nañ leen baa ñu ñamal keneen. seen neex na sa waaw dire message la quoi. si daw na yaram daw na ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ci loolu la ñuy dox c'est-à-dire euh, lépp lu ñuy génne rek day doon thème. waaw ah, je les encourage en tout cas. macha allah merci à toi allahumma amiin. merci merci merci beaucoup ayca ñi ngi koy kontaane bu baax a baax profite pour féliciter The Best ak Subatel Music euh, ci xale yi fi ngeen leen teg ndaxte lii c'est un message boo xamante ni euh, gis ngeen ni période yi ñu toll sax euh, ñi ngi wax waxu cala li nga xamante ni moo jëm ci wàllu clandestine ngeen jël titre bu mel nii dippee ko xale yi donc c'est quelque chose en tout cas merci beaucoup euh, très rapidement il est 12h30 on peut regarder TikTok enchaîné ak sama gars yi euh, rubrique TikTok bi nga xamante bu noppee rek ñoom dañuy dugg bégal gars yi ndax ñi nga en place actuellement euh, gré bu fekkee ni kale nga ko rek mën nga ko rogalaan ci suuf ñu seetaan rubrique TikTok ba noppi doog leen dalal ñoom itam ñu mën a bànneexu euh, bégal sénégalais yi ñi nag ñooy waa step step lord di ngeen kontaan lool lool lool ci xale yi ma leen indil tey ay ci on regarde rubrique TikTok from le shop c'est parti. ah xale jigéen yëpp ay ak man c'est ça la différence xam nga la soxla waxal waaw kese. mooy troisième fois ñuy gisee et tu veux déjà une réponse de part. mais loolu yëpp ay détail la honestly I love you and I want to give you lots of love baby just say yes waxal waaw ñu nekk. tegaat nañ ko deux doy na nag xamoo bu ca yem de. <laughs> Masor loo may yemalee nga mel ni ku log ni vaaki li gañ yi bisimilaay rog mbalax ni fii di kato bi kenn allo ay Masor bu ñu xewee nag loolu de lay jooy xewi moom buñ ko naree def damay xaru lay naan eau de javel sama mbàq furi xewi <laughs> xew a neex ay bu ñu xewee ma xam bilaay duma mës a loolu maa bëgg nga waatal ma billaahi wallaahi taalaaxi ne du mës a takk ñaareel eh? loolu rek nga bëgg jàppal billaahi wallaahi tallaahi mënuma laa garanti ne duma la takkal wujj

sëyal ci kaw bi condition foog nga trouver solution ci kaw problème bi nga am bala sëy bi di ne sa habitude foog mu changer jabar kenn du ko danga koy mën altine nga cuuj fii talaata nga cuuj fee waaye sonn nañ ci cuuj fii geeg <laughs> Ah, boss nee na ma upp baax na laax bu tàng très bien lës kat dafa jàpp ay fecc dafa jàpp réplique TikTok yi kat ay euh, bu reeloo nit ñi la mais pas fecc mu metti moomu nga xam ne kenn xamul lan la lës des fois day mais sama xarit bi nag dem gañe nga de <laughs> ma wax li nga gañe <laughs> je laisse tomber les amis à découvrir euh, des jeunes yoo xamante ni ils sont formidables ils sont exceptionnels les plus connus euh, dans le milieu ci wàllum li nga xamante ni moo di step ñu tuddee leen step lord xale yi nga xamante ni euh, dafa am ay xale yu jigéen ñu jongoma yu ne ci biir waaye gentlemen yi fa nekk rek mën nañu tukkil àddina ils sont connus un peu partout au Sénégal et dans le monde je peux dire seen ay vidéo day def étincelle di ngeen leen di gis ci ay vidéo di ngeen leen gis ci ay clip c'est à découvrir les amis regardez Step Lord et c'est à l'instant au Parc des Princes de la 2STV c'est à go c'est parti venez position breathe step première partie dañ doon ñamal gars yi rek xaw nga xëca e ci wuye xëca ci wuye lambda quoi lambda quoi lambda quoi lambda quoi lambda sigma lambda hey lambda quoi lambda quoi léegi ñu simple ko. li laa bëgg cuuye eh, simple. <laughs> c'est des garçons d'une dimension extraordinaire je vous l'avais dit les amis voici Step Lord c'est quoi Step Lord en français les seigneurs du stepping. au Sénégal ou partout dans le monde. partout dans le monde. ah booy gëm nañ seen bopp de man li laa gën a gëm ci jeunesse quoi. Ah. boo nekkee di def dara da nga koy gëm. Ouais. Ah ouais, faut maa leen di bu baax a baax a baax sa nous fait énormément de plaisir de vous avoir parmi nos invités les jeudis c'est pour les jeunes yi nga xamante ni ñoom itam ñu ngi ci yoon di def loo xamante ni lu mucc ayib la nee naa la yemuma ci théâtre mm-hmm. yemuma ci waykat ci lépp laa nekk tey dance man yi nga xamante ni ñii ils sont connus un peu partout au Sénégal ñoom laa leen indil ma lay bàyyi nga nuyonte gaay ba pare ñu dugaat ci leneen waaw maa ngi ziar ñëpp. di ziar Lamda et Lamda quoi. Lamda Sigma. di aussi tous les téléspectateurs de la 2STV di la bëggee yow tamit euh, Kheucha. Mm-hmm. di wax gars yi li mooy Step première équipe de Steppin au Sénégal. ou mhm. première école de Steppin au Sénégal ñu ngi rek juste pour représenter Steppin. waaw parce que man des fois damay gis yenn xale jigéen di léeg-léeg yenn yeneen yi di ma xool ni ci ginnaaw nii bi bi ah, kii <laughs> kii maa koy doon gis. Rémo Junior ne si comment ça se fait que euh, qu'est-ce que vous avez fait euh, pour mobiliser beaucoup comment est que vous avez fait plutôt pour mobiliser yenn jeunes ci wàllu step ñoom gis bëgg ko wala yéen yéen leen di woo. waaw de ah, avant tout nit booy def dara da ngay def de telle sorte ko ku ko gis da koy bëgg. te step in yàlla da koo baaxal dafa nekk <laughs> danse bi nga xamante ne waaw. <laughs> da koo bëgg de yàlla daa baaxal step in. dafa baaxal step parce que mooy danse bi nga xamante ne. <laughs> foo ko def ku ko gis da koy bëgg ak nit bu ma mënti doon. alright loolu yow tu confirme. yaa man bu ko gis ak bëgg ko doon. ah noonu la demoon nga woo ñu tey. di def yëfi xale. takkatalal albasat. waaw noonu la demee dama demaat ñu dem takkatalal am na yeneen ak yeneen. waaw li lii li dafa toog. ah oui li dafa toog est-ce que am ngeen ci yenn ay école ñu ngi leen ci woo ay programme yeneen ko ci am et tout. oui alhamdulilah depuis ñu commencé on a fait pas mal de scènes. Mm-hmm. on a fait presque toutes les grandes scènes de Dakar. ah bon léegi il reste ñu génn Dakar dem def promotion bi parce que ñoo ne en phase en phase de promotion. Mm-hmm. et man maa ngi def ay programme after school ci yenn école et voilà ñoo ngi nii daal. ñoo ngi nii juste on est là pour faire la promotion du Step non seulement au Sénégal mais dans l'Afrique de l'Ouest ah. mais mais mais gis groupe yu bare bu tasee après xale yu jigéen ñi ñooy bàyyee ko am jëkkër gi teel a bàyyee tout ça est-ce que yéen a ñu am jëkkër. waaw mais alhamdulilah Steplo d'habitude ñii fi nekk yëpp dañuy def si ñoom seen xel dañuy doon artiste ba pare. te boo doonee artiste même nga am jëkkër sax da nga koy def. dañ ko def dañ ko def passionnément. mais pas pour passe temps ndax man dama koy wax gars yi ku ñëw pour def step in pour passe temps bul ñëw. ñëwal nga nekk ah, nga nekk acteur nga nekk comment dirais-je artiste boo nekkee artiste même boo amee borom kër je pense bien que di nga continuer di di di def ay activités. alors deuxième partie ci leneen li nu indil bu fekkee ni c'est calé aussi. Ah ñu dem ngeen xo ma xool. ñu dem si kii ñu lu tax ma doo ma rappé. Eh, ah, <laughs> ñu pare c'est calé. ayca <laughs> yeah. <laughs> am na doole. bu pour pour sa chanson bële après naa tegal. ok ok <laughs> après naa tegal. ok mais nañ ci yéen bëgg nañ ci yéen en tout euh, di souhaiter bu ngeen defaloon Bastung. bu fekkee gëree chibiri bi chibiri bi chibiri bi Bastung ñii ñoo ko fecci bi bu ngeen ma ko ci ñamalee dama neex de. ah non ah, bi chibiri bi ñoo ko feccoon boo xoolee ci Bastung chibiri bi euh, bi noonu muy balancé woo nga koy teg rek ñoom dinañ la ko feccal fii ba nga bëgg léegi léegi léegi donc euh, xam naa ne mi ngi ci mi ngi ci nii instant yi ci loolu la nekk bu fekkee ni kale nga ko rek da naan ma c'est ok ñu mën koo rogalaan ci suuf gars yi mën cee béeg je vous rappelle que sur le ñii nag ñooy step lord des fois foog ñuy indi musique des fois foog dance plutôt mhm. pour ñenn ñi nga xamante am nañ ko talent bi parce am na ñoom ñi ngi lay seetaan nii noonu la ñu mënee fecc après di nga joxe sa numéro xoolal ci suuf doxal ma xool commencé waat c'est cool c'est cool et c'est impec macha allah euh, Gara lu tax yokkoo bi ci kaw a kaw a kaw. waaw waaw waaw mais ah, en tout cas ñu ngi ci <laughs> bu baax a a baax. Euh, uh-huh. nga rappelé bi euh, pour ku leen bëgg a jot naka lay def aussi. waaw ku bëgg a jot Step Lord. juste mun nga dem Instagram Step Lord ñu ngi foofu sénégal yi follow gars yi xool travail bu ñu nekk di def. voilà wala mun ngeen ñu am 77 647 90 57 wala 77 225 99. 16 all right. mais kontaan naa ci yen ñoo la gën a bég merci d'être passé au Parc des Princes guys. merci pour l'invitation kontaan naa ci ñëpp ah. jaajëfatee. ma ñu lambda haay maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax rakki Mama Mbaye laa bëgg tëjee euh, rakki Mama baay bu fekkee ni kalel nga ma ko du man maay rakki Mama Mbaye xale ba gatas ko gos ko ambiance pour ay ca gërëm dese naa fi juróomi minute yoo xam maa ko moom man man ay ca rogalaanal ma rakki Mama Mbaye bi ñu xool ko seetaan ka xale yi mën a bànneexu seen kër ñu dem ayca l'international merci beaucoup may ma ko fii dimbali ma may ma ko fii euh, ma daal di bëggee yi nga xamante ni ñi ngi doon seetaan seen kër euh, di bànneexoo ak ñun itam ñi ngi leen di jaajëfal di leen kontaane bu baax lundi au avec Kheucha en compagnie de l'équipe de la 2STV pour vous servir à mes chers téléspectateurs encore une fois de plus merci à toutes et tous merci euh, de nous avoir accompagnés yéen ñi nga xamante ni yéenay toog seen kër di def seen ay vidéo chez vous yéen nga xamante ni yéenay toog seen kër de 11h à 13h message di ma appel lu ne ngeen dugg ci ak man ñuy kaf di foo de 11h à 13h maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di kontaane sama xol laa ko tubbee bëgguma woon sax yi fi jeex ndaxte xam naa ne da di wéet xam naa man xam naa ne da di wéet waaye gërëb gi nag dama koy tàmbale ci nga xamante moo di Fed Mode xale boobu nag moom tarkal semaine bi li ma li ma solal ah du ma ni say euh, euh, moom mooy sama meilleure semaine mais bokk na ci samay meilleure semaine euh, macha allah muy 77 711 69 76 77 711 69 76 moom moo ma jox chemise yi ma fi sol yëpp donc maa ngi koy jaajëfal di ko kontaanee bu baax a baax a baax di ko wax merci beaucoup en tout cas sama xol laa ko tuddee gërëm naa la ah merci beaucoup également à la régie merci beaucoup à l' technique Koulim Dioum gërëm naa ñëpp gërëm naa leen yéen ñi toogoon seen merci beaucoup à Le Shop merci beaucoup tombé bàyyil mu sedd ne maa ngi souhaité joyeux bu baax a baax a baax rendez-vous lundi prochain et incha allah rabi tous les mardis désormais di ngeen am star en ligne jaajëfa tee c'est